tuloo foofu euh, justement ñu ñëw tuuti si li nga xamante ne moom mooy sa départ de l'Assemblée nationale euh, da nga ne dañ dañ la déchoir de ce mandat de député nga ne woon da nga ciy annoncé ay euh, recours da nga ciy jox une suite juridique dem auprès de la Cour constitutionnelle et s'il le faut même auprès de la CEDEAO Euh, pour dénoncer une violation de la loi fan nga toll ci recours recours juridique yooyee et comme je dis da nga confirmer ce soir ne ko yow bokkatoo fa suñ doon misaal tey mën nañ ne ah euh, ci diggante ñaari nit ñu doon ànd wala ñaari nit ñu doon sëy wala ñaari nit yu bëggante léeg problème mën na am soxna si daal di fay mais waxtaan daal di ñëwaat ñu juboo wala fi mu ne nii la page APR est définitivement tournée pour Mimi Touré j'ai été exclu de l'APR de benn Bokk Yaakaar loolu leer na loolu mooy argument bi nga xam ne moom la ñu yëkkati pour foqati sama mandat foqati laa ko tuddee euh, mais loolu pour man la page est tournée depuis très longtemps jàll naa ci jàll naa ci leneen puisque annoncé naa suma candidature euh, premier janvier j'espère que dinañ am occasion waxtaan ci programme parce que loolu nag dafa am solo wan sénégalais yi ne situation bi ñu nekk war nañ cee mën a génn am nañ ay programme yoo xam ne bu nu ko tëralee incha allah bu nu yàlla jàppalee réew mi dana mën a jëm kanam donc pour man page boobu euh, vraiment c'est le passé euh, tourné naa ko euh, maa ngi orienté wu vers suma mouvement Mimi 2024 ñu ngi koy implanté sur l'ensemble du Sénégal de la diaspora parel suñu bopp vraiment pour programme bi nga xam ne am nañu ko Euh, pour sénégalais yi te dinañ fi waxtaan certainement euh, ñu mën ko wala proposer aussi à no concitoyens suñu mbokk yi bu ko defee réew mi jëm kanam noonu laa ko gisee voilà.